moom ci moom la ñuy topp incha allahu rabi élection yi di ñëw dinañ ci génn nekkoon ak président yi fi nekkool nga xam ne dafa am ay ay ay yu leen tënk ba kenn mënu leen topp si yoon bu ñu demee assemblée national après dañ leen di topp parce que dafa am ay doomi jàmbur yu faatu am ay réew mi ñu daal di jàpp ay nit assassiné leen ñii disparaître kenn xamul fu nu ne ba pare affaire bi jaxasoo moo tax nañu jël majorité bi jox ko président Ousmane Sonko mu daal di lijjanti li nga xam ne mooy réew mi ñi fi nekkoon ay ministre yoroon ay direction nga xam ne loi bi pour nga topp leen day jafe su ko defee dañ daal di teg Haute Cour de la bi daal di leen di wàcce. gars yi ko foofu te xam nga loolu aussi. non Bougane dafa am jot. parce que moom ndar la dëkk mais Bougane bu amoon fit dëgg day dem ndar département bu Saint-Louis xëccoo ko olof dafa wax ni bu la nit ñi di gërëm nanu xool ndax sa waa dëkk gërëm nañ la Bougane boo bëggee dëgg-dëgg man ndar laa dëkk fa laa juddoo yoro laa yoroo fa laa màgge Bougane bu meloon ni mu war a mel keroog ba mu ubbee seen TV Tapha Touré ak Djibi Seye da leen di jël parce que ñun dañoo représenté Saint-Louis waaye da gis ne yëgul ni sax ñun ay artistes lañu ba suñu papa El Hadj Ndiaye jël nu dugal ñu si bi dagal ñu salaire Bougane nekk na lijjanti lew na leer moom xam na li may wax noo ne na lew na oculaire non dina moom xam na ko naka ci tontu ba pare gars yi nan nu may jàmmaa ah. non non amu fi xam nga fii lan moo fi am majorité bi fo ñu jox ko président Ousmane Sonko mu lijjanti ñoom li ñu def bu fekkee dañuy wax fayantu doomi jàmbur yi ñu rey ah mais loolu dafa ñaaw nervi yi mu doon jël nag ñuy dóor ni ñi léegi nervi yaa ngi ci aéroport yi ak ci avion yi bu ñuy dakkaloo ñu jàkkaarloo yow wax la dëgg jaa ngeen jëf. jaajëf. booy yi te pour ñu liggéey foog ñu am ay loi yu bees ndax réew mi yàq nañ ko yàq goo xamante ni foofu ñu defaraat lépp may wax sama mbokk jeune nañ góorgóorlu surtout la jeunesse de Dakar nañ xam ne liggéey bi ñoom ñoo ko moom ñoo war a liggéey liggéey bi tey nag ñoo ngi sant ñëpp ndax li am fii tey musta xool leen ñi fi daje ci mbooloo mot nañ des milliers de personnes gisoo fi policier wala gendarme bi taxawaalu pour gérer la sécurité ñun war na nañ si kanamu Sénégal si kanamu àdduna ni on est assez responsable pour gérer ce pays on est assez responsable pour gérer ce pays comme jeunesse bi nañ gën a ci président Ousmane Sonko woo ñu nekk ci te bañ cee boole genn wax ñu ci liggéey leen ne tollu ñu wax merci. voilà mi ngi noonu ba tey ñu ànd ak yéen ah, ci ah, li nga xam ni rek ah, moom moo di intervention yi nga xam ni yenn ci pàcc xot yi ñu ngi koy def libaas ñu dem ñu dem jëli kooku. ñu dem. Euh, ñi dem euh, jëli ko jàmbaar ñu ngi lay nuyu. nice lépp jàmm. lu ngeen bëgg a zappé Bougane lu xew diggante waaye yow sant nañ la gërëm nañ la gis nañ sa taxawaay gis nañ sa liggéey. mais bu ma bu ma bu ma du ma def du ma def euh, kii nu mu tuddee sax entre di tuddu kooku du ma tudd turam ndax am na loo xamante ni maanaam maanaam maanaam neexul quoi xam nga ne boo boo boo xoolee comme exemple lamb rek nga fekk Balla gay mu taxaw. nga may tuddloo yaaw jaal kon yow bëggoo ñu waxtaan kooku dumbër mbër. nii may waxee yow da dem Bakel yëngu ni dañ koo jàpp yow imagine toi président nekk béréb ñun la kenn amul droit dugg kenn amul droit génn maanaam yow yow loo jàng di jàng di jàng di jàng di xam nga ni tey bu la gendarmerie interpellé woon ah nga wane diplomatie gu toll ni oyof wàcce say loxo liñ la def loo nga def ko mu seey ñu wane ni sax respecté nga sa sa takk deru réew. mais ñàkk yar ak ñàkk teggin ak ñàkk respecté sa sa sa sa takk der réew moo waral ngay def lii ngay def di def yi ñàkk fayda yoo xamante ni booy yi demoon daara sax du ñu ko def ku xamul dara sax du ko def ba li ja xew-xew ci muy muy victimisé wu taxu ñoo jóg li ma tax a jog maa ngi loolu entre parenthèse woon rek mais li ma tax a jóg mooy procès bi ak li gars yi nekk ci réseaux sociaux yi fan yi naan damaa découragé wu di dagg ay bracelet ak di filmer nan dëkk bi dafa taxaw dëkk bi dafa taxaw la daan dox sa waay mi ngi dox la daan neex ma ngay neex risquement xindallaa wërsëgu jaam yàlla ña daan xëy liggéey ñi ngi am mais ña doon sàcc seen i mbir day taxaw ndax porte ba la ñu tëj porte ba la ñu tëj amatuñu fu ñu jaar kon dara seennatul mais ña daan xëy di liggéey di am ñi ngi am nii may waxee yow man maa fi ñëw maa paasal sama bopp ah daggal sama bopp billet ah garde ñee yi ci bunt bi ñële barke seexul xaddim maa leen jëndal jus bu ñu naan ak banaana bu ñu lekk sama xaalis te bi ma koy xol bu sedd laa ko jënde dama ko jënd ak mbégte te wàññiwu ma dara yokkute dong la seen nga nit bu nekkee ci dëgg coow li mën naa bari booy lekk pom bul ñaan yàlla njëkkee lu neex li mujjee lu neex ba neex dañ koy mujjee mais kenn du ko njëkke fa inna ma'al usri yusran yàlla lépp lu mu jafeel rek jàpp ndala nga ca wet ga nañu taaxeer lu ànd ak patience surtout ndaw ñi gunge ñii ay nit boo leen jiitalee da ngay def bloc topp seen ginnaaw pour gunge leen pour ñu am li ñu bëgg mais doo leen jiital ba pare di leen fa fakkasal loolu rek laa amul lu may wax jaayef ci kaw. am na solo euh, voilà Khadija Mahécor euh, mi ngi noonu ñu euh, jël ko moom la mairesse bu Golf Sud bi. di wax rek nii la campagne est lancée. notre tête de liste monsieur le président Ousmane Sonko le président du parti de PASTEF moo woote tey donc ñun nag nous sommes les patriotes du Sénégal les patriotes africains du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité patriotes Sénégal yëpp la ñu woo képp ku nga xam ne bëgg nga Sénégal développé wu ñu ngi lay ñaan nga voté la liste qui est portée par le président Ousmane Sonko ñu jox une majorité à l'Assemblée nationale boo président Bassirou Diomaye Faye parce que dañu am projet bu ñu war a doxal dañuy yónni te dañu yàkkamti te Assemblée nationale dafa nekk moment boo xam ne moment bu important la pour li nga xam ne moom la ñu song muy jéem a xool nan la ñuy def pour compléter li nga xam ne moo ñu manqué moom une assemblée boo xam ne député yi fay nekk dañuy nekk des députés yoo xam ne dinañ mën a toog ngir Sénégal wax ngir Sénégal wa bañ a am par parloo bi nga xam ne moom lañ fi gisoon si yeneen législature ñu soxla nag euh, cette majorité di ñaan tous les Sénégalais ñu vote la liste de Pastef parce que voter Pastef mooy voter li nga xam ne moom la def continuité par rapport ak li fi amoon ci élection présidentielle c'est une assemblée de rupture mhm. une assemblée pour le peuple par le peuple une assemblée avec des députés yu ne bu ñu fa taxawee dañ fay toog contrôler l'action du gouvernement parce que loolu mooy seen rôle mais représenter enfin dignement les sénégalais yi nga xam ne ñoo leen fal. ñu gis nga xamante ne si moo di Bougane ñu ngi ko arrêté. ñu ah, jàmbaar jàmbaar yow daan nga ndox bàyyi journaliste yi de patriote kon ni ngeen def. waaw mais ñu ngi lay fay bu baax di la ziar bu baax a baax. Euh, di nuyu Makan mi nga xam ne sama copain la yàgg nañ travail ci lu mel nii mais tey peut-être bi fii la waroon mën a nekk mais ñi nga am mbégte bu baax comme nañ koy waxee rek teew fii parce que ñun ñëpp instant yi dagg nañ suñu liggéey ñëw wuyu ji woote bi nga xam ne premier ministre da woote muy firndalaat li nga xamante ne rek yoonu dëgg la parce que tey comme li may wax chaque jour mënuñu ànd ak nit wax ba fal ko bugg a wax ba folli ñu ci woote dëgg yar nga gis mbooloo mi fi teew yëpp ne woon naa sax tey waruñu woon woote fii stade bi la ñu waroon woote Ablaye Wade parce que fii sénégalais boo xoolee ñu fi ñëw ñëpp nga xam ne xajuñu fi vraiment ñun ñi ñoo ngi nii door a egsi mais mënaguñ am accès si biir loolu da lay ni tey cofeel bu sénégalais am ci moom yéene bi ñu am ci moom pour ànd ak moom liggéey ak moom ci projet bi loolu ba tey ñuy sénégalais ñu ngi ci tey ñu ngi ci ba suba ñi nga xam ne ñoom ay sabotage lañ ak ñi nga xam ne seen xol daa jeex ñooñu nga xam ne ñoom buñ sañoon waa du fallu Diomaye du fi nekk Ousmane Sonko du fi nekk ñoom ñooy kaas ñoom ñooy wax mais ñun yàkkamti ak ñi naan bi xaw na ko woon ginnaaw yow ndax loolu nga gis waaw mais léegi xoolal lii rek boo xoolee